nag bàyyi leen loolu lu dëgg Karim on en vient maintenant à ton actualité dernièrement gis nañ la nga génn di expliquer rek euh, te li ci gën a fës bokk na ci bu la laajee ci nguur gu bees gi li ngay njëkk wax mooy dañoo tas sama yaakaar mhm. foo ko teg waaw non xam nga Nafi dafa am wax boo gis rek dafa am dafa am dafa am laluwaay c'est-à-dire en comme on dit laluwaay dafa am luy sut lu fu mu jógee mhm. Nafi ñun dama ko wax la fois passée ma ni ñun ay activistes lañ. ñun on a fait le choix sànq la ko wax ne d'être des activistes. activiste mooy koo xamante ni comme sentinelle la koo xam dafay équidistant farul fenn àndul ak kenn xam nga kan lay àndal ki amul doole comme sànq yi ko waxee ñi seen baat mënta jëm kaw. Mm-hmm. maanaam ñi ñàkkal seen baat mënta jëm kaw ah ñoom la ñu yor seen baat ñi nga xam yoon da la ñu ñoom la ñu yor seen baat te tëj ci kaso bi fàtte leen si te siiwuñu kenn du leen waxtaanee si média bi ñoom la ñuy représenté. ñun loolu la ñuy sari ñun suñu wareef ci ci ci ci ci ci ci maanaam la fa passé maa ngi koy wax si si Alima Dione ma ne ko man ci préfère nous on a préféré d'être dañ dee mbay peexu askan bi man je préfère être un mbay peexu benn soldat bu demoon xeexi nekk benn invalide xamoon la mm-hmm. ñu dóor ko dagg ñu dóor ko mu dëgg mine antipersonnel tànk bi dagg mu yelwaan ci internet bi pour faju te système bi la war noo xam ni taxawuñ ko ba mu faje jare ay doom mm-hmm. ay ay lu mu fajee kiyam ba amul sax lu mu yore ay doom waxatuma la lu mu fajee sax amu ko bay dem ci xalaat yor njabootam te pourtant il a servi le Sénégal ba tuur deretam tu vois ce que je veux dire donc ñun ñooy man ñun la ñun loolu ñun donc choix boobu lañ def choix boobu nag àndul ak ànd ak ay homme politique wala wala ànd ak nekk ci parti nekk au pouvoir quoi toog ci pouvoir. mais les gens d'aucuns pensaient Karim réellement que tu étais un militant du PASTEF. parce que ay jamono gis nañu anam bi nga xamante ni nag noonu nga porté woon le projet. Euh, mm-hmm. de de de Ousmane Sonko. waaw mais loolu c'était tout à fait normal. tey nii par exemple su may wax si Bougane Gueye Dany y en a qui disent Karim dafa ànd ak Bougane Gueye Dany su ma gisee loo xam te injustice la bu ñu teg Barthélémy Dias wala ñu teg ko euh, keneen ak keneen dañ naan Karim dafa ànd ak kooku parce que xeex bi moom la leen ko fekk ñun bu ñu taxawee fii ci dara dañ ciy dem à fond mais bu ñu génnee li ci dëgg lañ nekk te teg ko ci texte yu leer na c'est-à-dire nekkul ay affaire de parparloo maanaam bu fekkee ni am na lu ñu war a xeexal na fi da nga naan Karim mi na fi da koy parce que xeex bi moo laaj loolu boo fekk mais man mosuma nekk membre Pastef te dama ko mos a wax. dama xool sama vidéo ci ginnaaw dama doon wax ma ni. xam nga entre wax ni ne bu ma membre Pastef ak di defee ni membre Pastef yi di defee c'est deux choses différentes. léegi na fi lan mooy defee ni membre Pastef yi defee xam nga lu am solo. mooy Ousmane Sonko dafa nekkoon nit koo xamante ne nii dafa ñëw yanu xeex boo xam ne ñu dañ ko yàgg gëm di ko xeex. boobu xamuñu ko moom. ñun ñu nekk ci mbedd bi nekk ci rab bi di ko xeex ci rappeur di ko xeex dem ba nekk activiste ko ne di ko xeex. idéologie Y'en a marre ñoom ñëpp ñu adhéré si. Y'en a marre moom maaratuñu moom. waaw non ah mi ngi maar ba tey de non mouvement bon je suis pas là pour eux mais wax nañu mouvement. maaratu leen de. non c' est que mouvement ñooñu ñooñu moo naan. yàggale nañu mouvement dafa mel ni bus bu yeb oto rek. bi benn bus buy buy voyagé. ñii di yéeg ñii di wàcc chaque année ñii dañuy yéeg ñii di wàcc. loolu kese la léegi nag ku nekk boo demee ba gis ni yow sa nit attan nga ko yegsi nga caaray nga bëggoon def yegsi nga caaray mais da ngay wàcc caaray mais ñi caaray intéressé woon ba ñu yegsee caaray wàcc nañ dem caaray mm-hmm. mais ñoom ñoom am na si ñoo xam ne ñu ngi continuer ak bus bi atteindre ah, gu ñu objectif xeex fa des de. waaw mais kon attention de. caata ci bus bi loolu. mais moom laa la expliqué donc donc kon xam nga. kon xam nga donc li ma la bëgg est comprendre nga mm-hmm. ma bëgg juste nga comprendre ko mooy man je n'ai rien contre ce régime là. Mm-hmm. contre qui que dama doon xeex ak benn nit bu doon tooñ boo xam dafa ñoo fekk ñu xeex bi ay idéaux ci principe ci souveraineté nga xam mu jiitu ci xeex yi nga xam ne Thomas Sankara moo ñu ko jàngal. Mm-hmm. c'est que c'est ce qu'un révolutionnaire nga xam dañ ko mës a gëm xam lan mooy nan la ñuy def ba débarrassé wu ci euh, ci impérialiste mm-hmm. nan la ñuy def ba débarrassé wu ci multinational yi ci ci occidentaux bi nga xam ne daf ñoo yeew du ñu dundee. noot mm-hmm. ñu jàpp ñu fii lu ñu am ñu jël ko récupéré ko. Mm-hmm. ñu war nekk askan woo xamante ni ñun wu lu ñu moom am ay ressources yu dul jeex. am pétrole or zircon uranium fer thorium loolu Sénégal am na ko marbre Afrique am na lu ne Afrique am na ko amul. mais ñun naka la ñuy def ba am ay leaders yoo xam ne ñoom dañu mën a porter Afrique dimbali ko mu génn ci nooteel googu ñu nekkee mm-hmm. monnaie bi sax moomuñu ko mm-hmm. suñu monnaie sax defaruñu ko mm-hmm. amuñu sax suñu banque bopp donc ñooñu mais ci ban anam nga jàpp ne rek pour pour pour euh, sa yaakaar de tas yaakaar en ah huit xam nga su ma nee tas yaakaar tu parles a xam nga gars yi dafa ay diisar non xam nga manipulation la aussi mm. gars yi ci six mois rek lañ def bëgg taxaw ne nii dañoo tas nangam nangam dañoo taxaw ñu wax jël ay engagement mm-hmm. engagement yi dafa am ay démarches yu mu laaj mm-hmm. na fi entrepreneur boo ñëwee jox ko mu lay liggéeyal mu lay tabaxal bu maçon bi ñëwee tabax fondement bi dëgg bu dee entrepreneur bu mën liggéey bi la wala bu xam liggéey bi xam xeex bi xam fan la fekk bu doon jàll nga mm-hmm. maa ngi soog a commencé quoi mais ma mais ma yeggali bi. Mm-hmm. tey xool xam ne fondement bi cerew mu ne gaañ fondement bi dafa dëng defaraatal fondement bi. Mm-hmm. soo nekkoon noonu man xam naa sama liggéey bàyyi ma def xam naa li may def du la bàyyi nga def ko parce que xam na ni lii su jógee après day wàcc si kaw ñu ne foofu tam loolu defee tam la. donc ñun bi ñuy wax ne gars dañu dañu tasu yaakaar ñu ko tasee ci. nga dégg ay base militaire yoo xam ne nee nañ la comme ñan. ah man dafa bari. waaw pour qu'on soit ci même. nga dégg par exemple. ñu par exemple nga dégg base yoo xam ni comme armée française par exemple ñu naan dafay jóge. waaw def lu tuuti. kaay lañ gën a samp fii sama ñu ñëwee nañ def ba armée française jógee fi. bokk na seen i engagement waxuñu na fi armée française jógee de bu leen neexee pour 6 marché yi wala ni bu doxalin bi ñu war a ne am na français lii kat bu bu dàqu li mel bi waxoon xale lii bu dàqu lii bu dàqu maanaam démarche yoo xam ne bu dàqu am na jàpp nañu nii moom armée française dina fi jóge franc CFA dañ si génne mais waxuñu franc CFA na fi génne ci 6 mois de mais dañ ne démarche yi nga xam ne moo ne ni ah armée française lii de euh, du moins euh, CFA bi de lii état bi doxi nii muy doxal su ko doxalee yaakaar naa am euh, franc CFA am na yaakaar nañ am suñu mën a bopp mm. xale fi lan la def xale bi bu ñëw jël cinquante mille pour ay réserve monétaire mais ñun ay dañoo problème satellite milliards par un an xaw ma deux ans xale bi ñëw na ne mais yéen sa satellite euh, deux cent milliards ngeen di fay satellite trois cent et quelques milliards la jar mais loolu yëfi dof la léegi nañ dajale am alal bu bari di jël sax suñu sécurité bopp. te tout ce télécommunication imagine tubaab bi mm-hmm. ne lii 300 milliards mën na gérer satellite mais chaque chaque kii nga nga fay 200 nga nga lijjanti de dollars jël benn satellite boo xam nga def ko jël 50 mille tonnes toog ci table ji pour ay réserve monétaire ñu am suñu banque bopp. Mm-hmm. luñ ko def luñ def xale bu mu defee loolu. cest à su li tax ñoom ñu def seen lépp lu ñu mën ba Sarkozy fexe ba lëkkaloo fexe ba ñu rey Kadhafi. mais ñun combat yooyu discours boobu la ñu dégg ci discours Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko dégg seetlu saa bu Ousmane taxaw di wax photo Thomas Sankara dina ci ginnaawam. boo demoon primature doo fa gis photo Thomas Sankara ba mu faloo la dindi photo Thomas Sankara sax yooyu laa lay wax quoi te ñun du ay problème personne jamais. man damay ñaan yàlla nekk jullit jullit mënul bañ jullit. Mhm. jullit mënul contre jullit te sama conscience sax du bàyyi su fekkee damay contre nit parce que samay intérêt personnel mooy tax mhm. mais dañ ma dama gëm ñu réew mi war na ci mën a génn ci discours ñu accompagner ko ñu ne dañ koy nasaxal ñu jug taxaw ne kenn du ko fi laal parce que engagement yi mu jël moo tax mhm. mu jël bu jël engagement wu ne ñoom incha allah bu ñu nekkee ci pouvoir bi pour criminaliser ko. après ils ont dit que c'est toléré au Sénégal. waaw cest à yooyu daal contradiction yooyu noonu ak wax benn affaire bi man dama toog Ousmane Sonko toog mu ni xam nga mu ni caisse noire dafa xaram pour moom loolu du vraiment caisse noire du loo xamante ni lu ñu war a jël du jël bu ñu voté assemblée nationale jël ko jox ko président bi mu teg ko bu ko neexee sax mu dugg ci.